yi nga xamante ne ñaari fan wala ñett moo des ñu dem ci bés bu màgg boo xamante ne bésu Sénégal la waaye bésu Afrique la ñu war koo seetaan nag ci àdduna bi yépp ñu toog ci ak ki nga xamante ne mooy Gallo Ba yore SOGIP mooy société boobu président Macky Sall taxawal pour ville boobu mu créé muy Diamniadio muy toppatoo li nga xamante mooy wàllu tabax yañ fa def ak infrastructure ya fa nekk nekk it ci wetu Euh, suñu xarit directeur SOGIP euh, APIX Mountaga Sy ku ne APIX nag sa xel dem ci jumtukaay yu bare bari mën na nekk autoroute mën na nekk BRT mun na nekk leneen waaye tey li tax mu toog fii wàllu saxaar boobu ñuy tuddee saxaar bi dawte du saxaar mooy le TER moom moo tax mu toog fii te mu bokk ci organisation bi nga xamante foofu la ñu jëm parce que ku bëgg dem jam ñaajo am na foo war a jaar te mu yor mbir yu mel noonu waaye ku tudd jam ñaajo it tudd le ministre Diène Farba Sarr nga xam ne moo yore DGPU ay représentant nekk fi waaye ku wax wàllu tàggat yaram wax comité olympique wax fédération football bi nga xamante ne ñoom ñoo fi ne ñuy gërëm it suñu gan gale toog muy Antoine Bafoué nga xam mooy coordonné ñi nga xamante ne ñoom ñooy effectivement star africaine yi ñu ngi gërëm it Mara nga xam ne moo représenté Youssou Ndour Youssou Ndour bi nga xam ne moo ne wàllu culture ci lii ñu jëm ci événement bi moom moo koy toppatoo ñu leen di sant nag ak dakaar Dem Dikki aussi Dakar Dem Dikki it ci mbir yi la bokk parce que il faut ñu transporter nit ñi yóbbu leen ca jam ñaajo su ko defee ku nekk du indi otom muy gën a xat loolu war nañu ci dellu si waaye li am le 22. li am le 22 lu am solo la mooy stade bu woo xamante bu mucc ayib la président Macky Sall jël ko jaglele ko sportu Sénégal mais jaglele ko football ak athlétisme euh, ñu ngi gërëm it waar bi nga xamante ne assemblée nationale la nekk ñëw fekkee waxtaan wi waaye li ma bëgg a wax mooy tey lii ñu ñu organiser cellule présidence bi yore communication. muy Seydou Gueye di Ousmane Ba ñu organiser ko pour waxtaan ak yéen jox leen yenn information yi lu ama am solo la kon le 22 bés bu ñu nar a la ci histoire u Sénégal parce que nag réew bu ñu la ko joxee da ngay am bëgg-bëgg da ngay am ambition bu am solo te lii nga xamante moo fi am ñu tabax ko ci fukki weer ak juróom-ñaar muy stade boo xamante ne liñ ci def ëpp na téeméer ak juróom fukki milliards loolu lépp ñu jàggale ko tàggat yaramu Sénégal ndam la ci Sénégal mais lu baax la it jumtukaay bu am solo la ci tàggat yaramu Sénégal yemul rek ci football parce que stade bële ku fa dem terrain rek nga fay fekk ak commodité yi waaye doo fa fekk piste d'athlétisme loolu nag président Macky Sall moo ko décidé boppam jël piste d' mooy fi ñuy dawee di fi defee athlétisme génnee ko def ko ci weti Dakar Arena ñu am fa terrain boo xam ne gazon synthétique la am fa piste huit couloir ak turbinu 2000 places waaye ci wet gi ñu am fa beneen terrain boo xamante ne dafa méngoog terrain bi nekk ci stade bi muy gazon hybride mooy boole synthétique ak naturel loolu nga xamante mooy li mujjee ci xalaat ñi nga xam ne ñoo yor wàll woowu. ñu àndi ko Sénégal kon président Macky Sall dafa jël li gën mu andil ko réewam te loolu li ko andi mooy coupe du monde Sénégal daje ak Pologne dooru ko ñu dem ci vestiaire yi mu xool stade Spartak de Moscou nam mel mu laajte ne lii laa bëgg pour sama réew waaye tey li mu defar fii defe naa ne boo ko méngaleeg li ne fële bi fii moo dàq loolu nag mooy wane ne boo jiitee réew war dara jomb ñu ci lu baax moom la ñu andi pour jagleel ko suñu équipe nationale jagle ko Sénégal ñu war a dem nag ci bés bu boobu muy bés bu mag boo xam dina am culture dana am it tàggat yaram artistes yi dinañu ci yëngu loolu ministre Youssou Ndour moo koy coordonné ak euh, le professeur Guèye bi nga xamante ne moom itamit conseil technique bu président de la république Massamba Guèye ñoo ñooy coordonné li jëm ci wàllu culture nga xamante ne 14 heures rek dañuy commencer animation yi dinañu àndi suñu culture won ko gan yi parce que président de la république dafay ànd ci liggéey boobu ak bés boobu ak ay naataangoom muy président Erdogan bu Turquie war cee ànd ak George Weah di président bu Libéria war ci ànd aussi ak ki nga xamante ne mooy président wu Allemagne war ci ànd ak Paul Kagame président bu Rwanda war ci ànd ak président Barrow bu Gambie war ci àndit président bi nga xam ne mooy président Guinée-Bissau mais bu ñoo ñëwee ki jiite football bi ci àdduna bi muy Infantino di président FIFA dina fi nekk président CAF Motsepe bi nga xamante ne Augustin Senghor di doomu Sénégal moo topp ci kawam moom itamit dina fi nekk waaye bu loolu wéyee ak ñi ñuy àndal dañuy noter ne ci wàllu sport bi ñu war a def dina am mat boo xam pour bégale la muy ñi nga xamante seen tour gën naa màgg ci Afrique dinañu ñëw daje ak ñoom El Hadj ak ñoom Boubacar Sarr Lokot ñi anciens yi nga xamante ne. ñoo yoroon footballu Sénégal def fi taarix ñooñu dinañu daje ci match boo xamante ne xam naa ne du yàgg ci ñaar fukki minutes lay toll rek parce que ñoom jongantewul pour gagner mais dañuy bëggal nit ñi loolu aussi war nañu ko xamal nit ñi ñuy wax rek nag bés boobu ñiy dem jóge Ndakaaru di dem ca Diamniadio ku ci am carte boo duggee stade di nga amit ticket TER boo xam ne doo ko jënd waaye di nga mën a jël TER bi dem ba jam ñaajo boo yeggee ba gaaru jamñaajo nag dina am bisu Dakar dem dikk yu ñu fa positionné yuy jël nit ñi yóbbu leen foofu nga xamante ne mooy stade du Sénégal bu fukki wax benn jotee jëm fukki wax ñaar muy midi dinañu ubbi bunt yi bunt yi nag bu ñu ko ubbee ñu ngi ñaan ñëpp teel a dem jël place yi surtout le monde sportif parce que bés boobu bésu waxtaan la bésu mbégte la entre ñiy def sport ak ñi nga xamante ne mooy président de la république bi nga xamante moo am yéene ci sportu Sénégal yàlla nag boo bëggee def jàmm bëggal ko sa réew yàlla la ciy fekk parce que ba ñu teg xeer bu njëkk ba lañ jàpp bés bi ñu koy inauguré boobu kenn xamul ne qualification sax mën nañ ci am tolof tolof wala ba jël coupe d'Afrique ba ñu tegee xeer bu njëkk ba ne le 22 février 2022 dinañu inauguré stade bi yàlla dimbale ñu. ba Sénégal it gagné li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique kon kay fête la boo xamante ne dafa ñëw fekk si waat beneen fête lépp Sénégal moom ko ni ko président Macky Sall defee woon bi nga xamante ne coupe baa ngi ñëw ñépp lañ ciy woo parti politique parce que yëf yi nekkul mbiru politique mbiru Sénégal la te Sénégal bu xewlee ñépp a war a fàtte li ñu gëm gëm Sénégal ñu ànd ñun ñépp féete nekk benn wane li ñu am wane xar kanamu Sénégal te bés boobu nag Sénégal fépp lañ ko nar di seetaane moo tax ñuy ñaan waa Sénégal cette mobilisation exceptionnelle bi ñu gisee bi ñuy ñibbisi ci Coupe d'Afrique bi loolu la ñu war a defaat fële nga xam mooy jam ñaajo nga xam non seulement Coupe d'Afrique bi taxoon ñu mobiliser nga fa waaye lu kenn amul ci Afrique am nañu ko foofu ci jam ñaajo muy le stade du Sénégal le stade du Sénégal nag dafa fekk si yéene président la République ci wàllu tàggat yaram bu ñu fàtte ne arène nationale am na fi Dakar Arena am na fi te loolu yëpp ci jaay xar kanamu Sénégal la bokk kon stade du Sénégal bu ñëwee fekk si kaw mbégte rek la mën a doon yëf yi nag mbër yeeg fédération yi ñu am yëpp 65 fédération et groupement sportif ñoom ñëpp dinañu ñëw fekke si lii nga xamante ne moom moo am ci stade du Sénégal muy inauguration boobu. leneen liñ ci wax mu jëm ci wàllu supporter équipe nationale douzième gaynde ale Casa ak ku mënti doon ñoom ñépp ñoo nar a dajaloo nekk benn pour accompagner événement bu ama am solo boobu ñu leen di wax nag ni yéen tag taskati xibaar yi yéen i tamit kenn fàttewu leen ni ñoom Sadio Mané ak ñeneen ñi nga xamante ne ñooy def tàggat yaram di football condition yu mucc ayib yi ñu fekk stade du Sénégal moom ngeen di fekkit stade du Sénégal commodité yi yëpp salle de conférence tout ce qu'il faut comme matériel informatique ce qu'il faut comme logistique lépp mu ngi leen di xaar fi nga xam ne mooy stade du Sénégal ñii leen war a jox badge yi dinañ leen jox badge badge yi nag jox nañ ma léegi xibaar ne badge yi dinañu ko boole ak ay ticket TER ba nga xamante ne ku bëgg a jël TER bi di nga ko mën a jël pour dem stade du Sénégal badge yi ngeen di yorit daf leen di permetre ngeen accéder fi ngeen war a toog pour def seen liggéey loolu nag en tant que ministre des bëgg naa ci parce que gis naa coono yi ngeen di daj fu ne di jël ay risques di ami jafe-jafe waaye loolu lépp avec stade du Sénégal lu ngeen di fàtte la parce que bi ñuy concevoir li nga xamante ne mooy stade bi jël nañu en compte le travail des journalistes et ça c'est extrêmement important leneen li nga xamante dinañu ko ci wax it moom mooy bu déroulé bi jeex liñ ci war a def di ngeen ko xam parce que dinañu ko multiplier jox ko nit ñi à ba nga xam ne fu ñu tollu rek ku nekk dana ko ci xam kilifa réew mi waxtu wi muy ñëw euh, waxtu wi muy ñëw euh, dinañu ko indiqué vers 17 heures la ñu wax parce que stade bi dina teel a tijji dina teel a fees animation bi dina commencé ñi show di show ñi ñi rap di rap liñ ci war a def yépp le ministre Youssou Ndour ak ñi mu àndal jël nañ disposition yi su ko defee animation bi commencé président bu ñëwee ba jël ay naataangoom visiter musée Pape Bouba Diop loolu it lu am solo la moment bu foor la mooy loolu mu tuddee bu ba Diop muy musée boo xam ne day denc xam-xam denc histoire loolu dina ko visiter daje ak wow famille Pape Bouba Diop surtout soxnaam ak i doomam ak génération 2022 2002 loolu bu weesoo euh, am na match bi bu amee ba pare am na yeneen i mbir yoo xamante ne dina fa am feu d'artifice ak tout ce qu'il faut pour wone l'existence de Diamniadio ñuy fàttali ne Diamniadio ay guy rek a fa nekkoon ak àll la woon suñ demee bañ investir fi autant de milliards xelu président de la république la loolu day rejoindre li ma wax léegi mooy njiit day am bëgg-bëgg am yéene bu am solo li gën nga di ko wutal sa réew looloo jur TER bi looloo jur stade du Sénégal jur euh, Dakar Arena moo jur BRT moo jur autoroute yi moo jur li fi ne yëpp mini ministère sphère ministérielle yi kon ku jël autoroute dem stade du Sénégal yéene ak bëgg-bëggu président de la République ay réalisation la yoo xamante lu ñuy laal la ku jël TER même chose la ku jël leneen nekk loo mënti jël pour ñëw rek loo xamante ne lu ñu xalaat la mu nekk une vision ñu am ay jàmbaar yu ko concrétiser ci wetu président de la république mun naan ñoo aider ci lii nga xamante ne moom mooy moom mooy inauguration bu am solo boobu kon dañuy ñaan sénégalais yi ñëpp ñëw en masse ci yéene bi ñu am pour accompagner bés boobu di bés bu màgg pour Sénégal ñuy waxaat encore une fois que ku fa ñëw à partir de 11h midi. dinañu ubbi bunt yi su ko defee ñi yor carte mun a dem installé wu carte bu ne nag dafa am fu lay taaj loolu it nañ ko xam carte yi am na ay numéro am na ay porte ay gate yoo xamante ne dinañ la am na couleur boo xamante ne ku ci ne di nga xam fi nga war a dem toog ba du am jaxasoo parce que nag foofu du stade boo xamante ne da ngay ñëw rek jubal parce que dafa ami bunt dafa ami nu mu tuddati am na ay parking plus de mille 1700 place am na parking souterrain pour les autorités donc y a toutes les commodités yi nga xamante ne moom moo fa am kon teel a ñëw na ko nit ñi def dina am collation buñ jox nit ñi dina am it sandwich yoo xam ne dana am pour ñi nga xamante ne dañuy teel a ñëw ñu mën a suturlawu foofu mën a mun a muñ eh, li nga xamante ne mooy tàmbañ bañ fa war a toog eh, li ñuy wax it moom mooy entretien bi képp ku fa andi looy jëfandikoo fexeel ba bu ko sànni. fexeel ba bu ko sànni nanga ko téye ba gis poubelle boo ko def l' aspect sécuritaire et sanitaire yëpp jël nañu ko tey ku dem stade Diamniadio gendarmerie ak police jël nañ en charge infrastructure bi kenn mënu fa duggee nu la neexee kenn mënu faa def lu la neex ñu bëggee nag li ñu war a wax nit ñi mooy nañu gunge les forces de défense et de sécurité ci liggéey bi boo kuy ñëw bul gàddu saak bul gàndu xanaa journaliste yi nga xamante ne am na loo xamante yor nañu ko te di ko liggéey mais keneen koo xamante ne mbir mi rek la indi boo amee saakit mën nga koo denc ba mu weesu rek su ko defee boo seetaanee nga mën a ñëw par exemple euh, na nit ñi sol masque aussi kuy ñëw na nga yor masque na nga yor gel parce que pandémie bi même bu dee benn cas jeexagul nañu ko respecté su ko defee disposition yi te xam ne àdduna bi yëpp ñoom ñoo ñu seetaan am na looy posé question waaw loolu du ñàkk xam nga nag loo xam ne dañ koy wër depuis 1960 1957 xaw ma kañ la fi commencé ñu di ko wër ba gis ko 2022 dañ koy gàddu nag coupe bi moom dina am moment boo xamante ne moment de présentation la parce que ci programme bi la bokk ñuy wax ne match bi nga xamante ne moom moo war a nag dajale ñoom Jay-Jay ñoom Didier Drogba Samuel oto euh, Anthony Bafoué bi toog fii nga xam ne mooy coordonné ak ñoom Omar Gueye ñoom Thierno Yomb El Hadj Diouf Fadiga Alassane Ndour Lamine Diatta ñoom Cheikh Seck ak ñooñu nga xamante ne ñoom ñooñu doon bëggal ci wàllu tàggat yaram match boobu nag président Macky Sall moom mooy joxe coup d'envoi bi ci waxtu woowu nag dina wax ak sénégalais yi dana wax ak Afrique dana wax ak monde bi boo gisee nag mu jox ñu ndigal pour que ñu tërale programme bi nii woo ci waa Afrique moo am ay naataangoom yu fi ñëw parce que président Macky Sall Sénégal la fi nekkal waaye Afrique it la fi nekkal dafa boole Sénégal yëpp moo tax ma ne yëf yi amul parti opposition amul société civile ñun ñëpp ñëpp a ko bokk ñëpp a ci war a ñëw waaye li tax mu woo ci Afrique it tey xam nga ne moo jiite Union africaine kon li mu def lépp mooy Afrique ñoo ko bokk Sénégal ñoo ko bokk moo tax woote bi ñuy woote. yéen journaliste ci ngeen bokk na ñëpp teel a ñëw ku nekk taxaw fi nga war a taxaw ñu feete ko ni ñu ko war a feete def lu professionnel su ko defee bu jeexee jàmm vers les de vingt une ku ne mën a ñibbiwaat ci jàmm waaye bu kenn jaaxle lépp luy matuwaay ci wàllu sécurité ak matuwaay ci wàllu déplacement jël nañu ko en charge su ko defee nit ñi muñalante heure fête lañ ne gis nañ ne Sénégal Coupe d'Afrique bi eh, ñëpp balante nañ. ñëpp a soppante kon jàpp ñu ne jafe-jafe war na ci am kon ñu ngi gërëm fédération sénégalaise de football di gërëm bu baax waa comité olympique di gërëm SOGIP di gërëm euh, APIX. waaw DGPU assemblée nationale bi fi nekk ak Dakar dem dikk di leen gërëm di leen sant ci teewaay bi jërëjëf.